jël na yoon di nga jël di fii waay lu ci ñaar Toujours euh, dans votre scandale du jour sur la chaîne des grands événements VIP People TV s'informer juste vrai tey àllarba fukki fan ak juróom ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñet. dama bëgg ñu sétane ben vidéo ki nga xamanteni moy euh, pa bobu nga xamanteni jaayum xob rek moy métier ak Serigne tariyaax nek ci radio yi nekk ci plateau yi di mbelelele alors que barki démb bañ ko jappé yóbbu ko fofu ci prison ba mandat de dépôt lañ ko tek mu melni jigen nek di joy di dem ay réanimation di indi ay wax yo xamanteni dafa safanok deug ñi ngi jëm ci verdigu li nga xamanteni moy mooy ci di set Olaf Ndiaye Ndiaye nee na ku jëlu di jooy yow yaa xam ku dee yow mi nekk ak yàlla gëm yàlla te alors que ci réseaux sociaux yi nee nañu lépp loo wax suba ba ngoon nañ jàpp ni que dara du ci dëgg à part sa tour sa tour sax amaana yenn saa yi nga wax ci lu dul dëgg yëkkati na ay kàddu gars yi jàppee ko la risée des réseaux sociaux dama bëgg a ñu seetaan yi ñaari vidéo yi dellu si waat bëgg-bëgg am genn yëg-yëg mooy jël Ousmane Sonko teg ko ci bopp Sénégal jàpp ne loola dana jëriñ réew mi képp koo xam ne da ngaa bëgg taxaw ngir salteel loolu na nga xam bu baax nga jël say responsabilité xam na am nga affaire ak ku ne loolu na nga ko xam am nga affaire ak ku ne te billaahi la si laa ilaha illa huwa xeex bii ngeen di xeex Sonko du ngeen ci am ndam ci saahir du ngeen ci am ndam ci baatin billaahi la si loolu moom mën nañ koo waat ci yàlla mën koo waat ci alxuraan ndax xam nañ li topp Sonko bu doon ay caaxaan baa ak fen du ko duñ ko topp te mësuma fàttaliku ci histoire àdduna fu yàlla dajalee ay ndaw yaakaar loo leen dara ba noppi tas yaakaar ja loolu mësta am te lii nag yaakaari ndaw ñi la yaakaari góor ñi la yaakaari jigéen ñi la yaakaari sëriñ si la yaakaar yi nit ñi jàpp ci ñoom jub yépp koo ci waxtaanal ci biir nekk dana la la ko nekk sama biir xol loolu nag du organisation kenn du lu kenn yi may kenn bu doon bayre bu ñu sangoo ñoo ko koy njëkk sangoo bu doon ñaan gu ñuy ñaan ñoo ko koy njëkk a ñaan lu yàlla subhaanahu wa taala di def ci téeméeri at yu ko neex wala ñaar téeméeri at yu ko neex mu sàkk ab jaam def ca moom la ko soob ne bu dul effectivement la 17 bi am muy ñaari atte y am ci diggante CEDEAO ak diggante atte CEDEAO bi nga xam ne CEDEAO mooy àtte senegal ak Ousmane Sonko ci ay mbir yu bari yuñ jàpp ne ay tooñ la bañ yóbbu ci kanamu cour boobu pour mu àtte ñu ak kalaame boo xam ne état Sénégal ci boppam moo def kalaame ci cour suprême ci candidature Ousmane Sonko ngir wax ne daf koo bëgg a génnee ci liste bi loolu nag nekk mbir mu garaaw moo xam ne ñaar moo ci am mooy nan ñaan ci yàlla loolu bañ a am mukk ci kaw suuf mm-hmm. waaye itam dolliwaat xamal nit ñi loolu ñuy bëgg a def lan la bañ man koo ba mu jaral leen ñu woor jaral leen wird jaral leen sàkk sarax pour loolu bañ a am parce que tey jii bépp télé bu ñu fekkoon muy tàkk ci réew mi ñu ne télé bii kat dañ koy fay weer comme ni ñu defoon groupe wal fajri xëy na sax mënees na koo toloree wala mënees na koo ñàkk a waaye bu ñu ne woon télé bii de danañ ko fay ba yowmal xayaamatil bar tele bi dootul takk danañ xam ne ah loolu kat lu garaaw la kon balaa ñu koo def nañ ko seet ñu seetaat ma ne ñoo ko doo ginnaaw ay kàddu yoo xamante ni yëkkati na ko toog na sol koppateem sol garaam bu boom di jaay loo xamante ni ab sëriñu tariyaax la lu mu la wax suba ba ngoon jàppal ni dara du ci dëgg yàlla li mu gën a ban ci àdduna moom lay dundee yàlla nee na bàyyi julli moo gën nekk di fen waaye yaakaar naa ni kii war na jomb toogaat ci ay plateau di wax wala ay jabaram dem woo ko ci néeg yedd ko bërki démb la fi toog di jooy di saraxu di yalwaan ginnaaw bañ ko tëjee yóbbu ko pavillon spécial mu mel ni liir bu ndaw buy yuuxu yaakaar naa ni tey kii su takkaatee micro yi ñàkk jom moo ko jàpp ndaxte la jëm ci verdict la di set du moom moo koy décider du ndayam du baayam du ay mbokkam c'est la justice xamu ci dara comme nag fen la ñu dëkkee woon lekk nañu avance xamuñu fu ñuy goxee avance boobu dañu bëgg ñëw pour intimider Sénégal ni ma leen ko waxee ni ngeen mënee takk micro toog pour manipuler sénégalais yi noonu laa mënee toog jàkkaarloog sama caméra yee sénégalais yi ñii jaruñoo déglu ndaxte la ñuy wax su doon dëgg la wala xam nañ ko wala yàlla ñoom la àndal ñoom ñoo fi toogoon ne am nañu ndomb boo xamante ni képp ku ko takk doo dugg kaso pourtant ñoom de tëj na leen ci kaso bi. donc ki toog di wax ne am naa ndomb boo xamante ni képp ku ko takk doo dugg kaso. gendarme sax dula japp mom ñu japp ko diggu ak ndal kam tëj ko ci kasso bi yobbu ko pavillon spécial muy yalwaan di joy ba nga xamanteni ñen ci mouride ñaan ñaanal ko ba ñu may ko liberté provisoire takkat na micro yi kon ki su amon jom du taxaw di wax yaakaar nit to waxe dara askan bi yëpp teg seen beut nga ne am nga ndomb bo xamanteni yang koy tak kep ku ko tak du dugg kaso yow ki nga doon defaan Ousmane Sonko jele nañ ko pavillon spécial mi ngi Cap Manuel yow si sa bopp dañ la jëlee sa biir kër yóbbu la kaso tëj la foofu sa doom bu muy judd fekkee woo kon kooku yaakaar naa ni bépp sénégalais bu ubbi nopp di la déglu yaakaar naa ni yëpp boppam la def kon yaakaar naa ni dof yi jamono jii ñoo takk mikro yi ndaxte li olof Njaay di wax rek kuy toxu kuy bëgg dee kenn mun leen téye moo tax seen làmmiñ day saxaar te nee nañ ku gémmiñam di naaj du wax jàmm jamono ji seen gémmiñ day naaj moo tax ñuy anticiper ci procès bi nga xamante ne mooy am le 17 incha allahu rabi le 17 cour suprême su confirmé décision gi nga xamanteni moy juge Sabassi Faye jàpp ni que Ayib Daffé day dem jëli fiche de parrainage am wuti ay parrain dem déposer caution conseil constitutionnel suñ fa joggé conseil constitutionnel xol ndax candidature bi dañ koy valider wala kenn du ko valider su dee dañ koy valider kenn mënu ci dara candidature Ousmane Sonko dañ koy valider yalla rek mo mën a teg du ko ba valider su dé nak cour suprême dafa invalider juge bi nga xamanteni si fay jël na ko ñu sukkandiku ci article L30 képp ku àndoon ak Ousmane Sonko demal nga wuti beneen parti nga noppalu. xam ne Ousmane Sonko illaa yow mi diine du ma sa nekk candidat du fal du woote du ma sa wooteel kenn kon wasalaam wax ji loolu la bu leen ma sàmba tiital bu leen ma sàmba nax ni ñu mënee wax noonu la ñeneen ñi mënee wax essayé nañ ko nag une fois deux fois mu jàll ñu foog ni dañ koy ñetteel sénégalais yeewu nañu ils sont matures ils ne sont que des menteurs ils ne sont que des manipulateurs ils ne sont que des faiseurs de roi alors qu'ils ne sont ils ne sont ni xamante ni nekk nañ Pape wax na leen ba leen fekkee ci kaso bi ñoom ñëpp doon jooy mel ni jigéen ay yëqeet suñu tiimee micro yi nag nga ne ñu ñoo fi ëpp fit xoolal guerrier yi alors que ay caméra ñoo leen tiim dama ne fit ci doomu aadama ci biir lay nekk fit mooy lan mooy njëkk nga ñemee dëgg di ko wax mu neex nga wax dëgg ñu menacé la nga wax dëgg ñu saaga la nga wax dëgg ñu jël paaka teg ko sa put nga wax dëgg waaye fit du question nekk fële ci sa ginnaaw caméra say jéegur la nekk say ginaar yoo xamante ni da nga triande ay nit ci sëriñu tariyaax ba pare toog bëgg a sonal nit ñi en tout cas sénégalais yeewu nañu te xam nañ fan la ñu féetee en tout cas incha allah le 17 lépp dina leer jàmm mooy am la stabilité dina am ci réew mi. Inch'Allah 25 février dinañ dem ci élection fu nexé suñu borom ñi wara bok dinañ bok ñu warta bok dinañ noppal sénégalais Sénégal day continuer doon Sénégal ñi Wara liggéey liggéey ñu wara tukki tukki ñi wara dox seen soxla dox seen soxla du ay mbindeef ay caapataan yo xamanteni ñoo taxaw fi tim micro yi di sonal ñi affaire Ousmane Sonko Ousmane Sonko n'intéresse pas les sénégalais yéen la intéresse yéen ñi ko def seen ndey def ko seen baay def ko seen yalla ñun yalla lañu gëm gëmuñu ma sàmb gëmuñu ma dem en tout cas muy li leen doon tay fi ci seen scandale du jour sur VIP People TV la chaîne des grands événements s'informer juste et vrai fukki ci novembre à novembre à tout quant à moi je vous donne rendez-vous à demain sur un autre numéro de scandale du jour et d'ici là restez scotchés nos programmes ça continue sur VIP People TV yow mi am jafe-jafe ci wàllu néew kàttan sa ndoxu awra baaxul wala sax sa awra nooy kaay ma jox la solution bi ci gën a gaaw produit 100 pour cent bio baa ngi nii muy produit boo xam ne dafa naturel amul benn effet secondaire dañu la koy jox nga boole ko lem ak limon di ko naan matin ak soir mu daal di saafara say jafe-jafe neexal sa biir néegu sëy am nañu pommade boo xam ne boo ko diwee ci sa awra mu daal di kuy dëgëral di jël ko waaye nag du ko guddal ma ni la bile moom itam dafa naturel lépp D'où le durel ben effet secondaire jokkool ak ñun yow ko 77 751 59 59 Ou la 76 313 93 94 ñun suñuy produit dañu la koy jox nga am satisfaction totale Si vous amul ñu daal vous lay delloo sa ñun rek